yow euh, bokk na ci problème mu sénégalais yi ay problème euh, foncier ñu ngi koy dégg fan yi yëpp euh, déjà mën naa citer Mbour bi mën naa citer VDN 3 bi c'est-à-dire problème yi ñu ciy dégg bari na est-ce que yéen ñoo lànk Euh, combat yu nga xamante ni wax dëgg yàlla yéen koy mën a ci loolu parce que nag wàllum suuf coowul suuf fii ci Sénégal yaakaar naa ni bokk na ci problème yi gën a rëy problème yi gën a sonal euh, yi nga xamante ni moo di askan bi effectivement ñoo lànk comme ni mu ko waxee léegi rek amul benn combat boo xamante ni bu ñor askan wi la boo xamante ni ñoo lànk du ci nekk mais problème suuf boobu nag daf ci daf ci daf ci daf ci daf ci daf ci parce que li ko indi rek mooy ba tey ñëwaat ci système bi rek loolu ci système bi la peut-être mën nañ ko mën nañ ko wax parce que mënuñu comprendre teg ay loi yoo xamante ni par exemple dañ ne boo bëggee am suuf fii ak fii nga war a jaar ñu ñëw xool nit am suuf te jaarul ci ci yoon ci yoon boobu par exemple je parle sous le contrôle de Amadou encore en tant que. Ah, juriste foncier non mais man <laughs> waaw mi ngi noonu juriste foncier d' accord na xam nga. l'histoire daf may droit boo demee ci droit droit foncier dañu lay wax ne y' a trois grands ensembles ci ci ci ci ci ci ci foncier. muy domaine national domaine de l'État ak domaine particulier domaine national c'est régi par la loi de 64 domaine de l'État par la loi 76 domaine de domaine domaine particulier par la loi de euh, 2011 donc benn bu ne dafa am régime boo xamante ni ku ci bëgg am fii ak fii nga nga nga war a jaar mhm. bu ñëwee ci kaaw Mbour bon avant état di di di ñëw. mais loolu waa état bi xam nañ ko mooy ñi service état bi xam nañ ko. xam Macky Sall ñu fi nekkoon xam nañ ko mais néew mais teewul ba léegi moom xam nañ ko. mais amoon na peu nu la neex lañ doon def par exemple. loolu nag mooy. xamoon nañ ko loolu nag mooy moo tax ma ne la système bu fi nekkoon la bu yàgg ba léegi. loolu nag ñi ñii li tax ñu de Sénégalais yi élection yi ñu dem gis lu mat 19 wala plus de 19 candidats ñu jël candidat bi nga xamante ni moo woote rupture boo xamante ni bu bu bu leer la ñu dem voteel kooku premier tour mu gagné am na lu tax jàpp naa ne pour dindi loolu moo tax te ñoom ci loolu la lañ xaar te jàpp naa ne ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci tànk yooyu li nga bu fekkee ci littoral bi tamit littoral bi jàpp naa ni dafa am ay conditions yoo xamante ni dañu dafa bokk ci domaine euh, domaine de l'État boo xamante ni domaine public de l'État la bokk. Mm-hmm. domaine public de l'État mm-hmm. boo xamante bokk ci li li ñuy woowee domaine domaine domaine. domaine privé. non domaine public de l'État ba pare waaw dafa am naturel am boo xamante ni artificiel la moom naturel la domaine naturel nag dañuy wax ne amul kenn koo xamante ni ñaar yi mooy kon mooy mooy mooy mooy mooy caractère yi c'est inaliénable et imprescriptible mooy lu bokk ci domaine national domaine do, non non domaine de l'État ma mari mooy domaine maritime de l'État mooy ay plage ak waaw waaw ak yooyu foofu kenn mënu fa tabax lu dut ne état moom moo la ko jox te ci ay conditions yoo xamante ni yu yu yu metti lay doon nit ci doot ci jot donc bu ñu gisee jékki-jékki rek gis mu commencé nit ñi di fa tabax ay ay ay ay ay ay R plus 4 ak R plus wala R ba R léeg-léeg sax ay R plus 14 daf ñuy jaaxal te normalement ñi nga xamante ni ñoom lañ ko waroon jox sax peut-être ñu mën ko nangu mooy ay hôtel wala ñoo xamante ni dañ koy def usage boo xamante ni. Mhm. lañ fay def lu ñu war a mën a dindi la facilement. d'accord.